alhamdulilah aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamina rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim xayri almaghdubi alayhim wala ddalin allahuma salli ala sayidina muhammadin fatin wa ahli qabal qatin ma sabaqa nasir haq bil haq wal hadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdari azim yaa himmata sayqi udlina bi hada almahdari wal taxti fi bi naxdari tati lana bi safara mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax di leen ñaanal yàlla tey nag suñu waxtaan wi mu ngi jëm ci wàllu sëy ana luy dimbale góor ci néegu sëyam ak lu koy dimbalee ci li nga xam ne mooy yéex a pare gaaw a pare yi nga xam ne léegi jàll na góor ñi ñu bari tey seen néegu sëy yëngatu na à travers li nga xam ne mooy éjaculation précoce am na ñoo xam ne tey seen xol am na stress bu metti parce que li ñuy wéyee mooy mënuñu ta mënatuñu satisfaire seen ay soxna am na ñoo xam ne jabet moo leen ko def am na ñoo xam ne stress moo leen ko def am na ñoo xam ne faiblesse sexuelle am na ñoo xam ne fatiguement général moo leen ko def am na ñoo xam ne euh, manque moyens moo moo leen ko teg am na ñoo xam ne seen comportement jabar yi moo leen ko teg am na ñoo xam ne ñàkk wér moo leen ko teg waaye am na ci ñoo xam ne nag lekk yi ñuy lekk moo leen moo leen indil li nga xam ne mooy wàllu problème mu sëy boobu. loolu moo tax nag tey ñu bëgg a waxtaanee loolu euh, di sant yàlla bu baax nag ci li nga xam ne yàlla xéewale la ñu ko ci wàllu traitement yi nga xam ne am nañ ko ci li nga xam ne mooy wàllu wàllu woowu nga xam ne moom la wax noonu. li nga xam ne nag mooy wàllu euh, faiblesse sexuelle. dafa am ay xaaj am ay pàcc xaaj bi ci njëkk am na ci lu ñuy ooyee manque appétit sexuel maanaam ñi nga xam ne duñu am yëg-yëg bu baax boo xam ne ci wàllu sëy euh, euh, bu ñuy sëy dinañ ko am maanaam wala bu ñu nekkee ak seen soxna dinañ am yëg-yëg boobu te manque appétit boobu dafa am ay xaaj yu ci nekk am na ci xaaj boo xam ne ci manque appétit mooy sooy sëy ak sa soxna soo demee ba war a yëg sa bopp bànneex boobu nga war a yëg da ngay gis mu mel ni loo xam ne dafay dagg wala mu mel ni loo xam ne dafa am lu koy yàq loolu dafa am feebar boo xam ne bu nekkee ci yow moom moo koy waral am na ci ñoo xam ne manque appétit bi ñuy am mooy mën nañ toog une semaine soog a am érection bu normal am na ñoo xam ne seen manque appétit il faut ñu gis dara ci jigéen pour ñu mën a am yëg-yëg ci seen bopp am na ci ñoo xam ne manque appétit bi ñuy am mooy li nga xam ne mooy su ñuy nekk ak seen partenaire seen xel mi day nekk ci leneen mënuñu concentré wu am concentration bu baax ci seen ak seen partenaire buñ moment bi nga xamee ne ñu ngi nekk ak moom pour mën a am érection bu baax manque appétit sexuel dafa am ay xaaj yu bari yu ci nekk ñu bari nag dañuy wax rek manque appétit sexuel manque appétit sexuel manque mais boo leen ko laajoon tey pour ñu euh, faram-fàcce manque appétit sexuel mënuñu ko faram-fàcce ma ma manque appétit sexuel bokk na ci boo demee ba nga xam ne yaa ngi war a éjaculer ñu baal ma ci kàddu gi foofu dangay gis ne sa appétit day coupé am na si ñoo xam ne tey bu ñu demee ba war a ànd ak seen soxna da ngay gis bu ñu demee ba jub seen soxna ngeen gis nga gis érection bi daal di peer dootul ñu dootuñu am érection bu baax ñooñu dañu am foofu problème appétit bu baax ñooñu bu fekkee ne àgg nañ foofu am na traitement bu ñuy suivre boo xam ne ci man yàlla yàlla defal nañu sutura am man gisuma fàttalikuwuma euh, koo xam ne suivre naa ko defal ko traitement bu traitement ci wàllu sëy te yàlla mooy ko wér ndax garab yi ma ci am yàlla daf ci def barke garab yi yàlla daf ci def tawfiix ndax bu fekkee da ngaa ànd ak rab wala nga ànd ak feebar boo xam ne daf la yàgg topp te xamoo ban feebar la li nga xam ne moom lay liggéeye plante yi nga xam ne moom lay jox nit ñi dama ci def alquran def ci dama ci def li nga xam ne mooy wàllu alquran wàllu baatin ba nga xam ne tey feebar bu mën a nekk ci sa yaram soo daanee garab bi da nga gis ne dina ko dindi ba mu set manque appétit boobu nag nga xam ne tey su fekkee da ngay sëy sa érection du dëgër am na ñoo xam ne dañu am problème érection bu baax mooy am am puissance mooy la ñuy wax impuissance sexuelle ñooñu nga xam ne am amuñu mënuñu sëy sëy normal nga xam ne tey bu ñuy sëy ak seen partenaire ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy xam ne am na am nañ faiblesse faiblesse bu doy waar sax mooy mënuñu am érection normale seen soxna dañ leen di mere loolu feebar la feebar la boo xam ne képp kum dal soo ko teelu la faj di nga dem na dema dema dem ba am impuissance totale impuissance totale nag mooy nga dem ba dootoo yëgati sa dara si sa bopp nga mel ni kuñ takk xala wala nga mel ni ku judduwaalewul ngóora loolu mooy impuissance totale loolu mooy bu boobaa mënatuloo yëg sa bopp ci lenn moo xam sa jabar teg la loxo moo xam nga gis euh, jigéen walla nga xam ne yow da nga dem ba nekk sa soxna dootoo bu boobaa dootoo yëgati sa bopp ci dara loolu mooy impuissance totale su fekkee ne nag da nga nekk koo xam ne danga am problème ci wàllu li nga xam ne mooy impuiss wàllu impuissance boobu euh, am na traitement boo xam ne moom lañ lay garab yoo xam ne moom lañ lay jox parce que garab yi ay ay ay ay tee la euh, garab yi ay ay ay tisane la yi nga xam ne moom tey boo ko jëlee naan ko tey boo ko jëlee naan ko même pas quinze jours même pas un mois nga wér mais daale daale dans les dans quinze jours da nga am érection normale di nga yëg sa bopp bu fekkee ne da ngaa am éjaculation précoce éjaculation précoce bi dafay dañ parce que éjaculation précoce cose yi koy indi bokk na ci stress mën nga stress wala fatiguement général nga moom mën na la ko teg waaye bul ci mënti doon bu dee fatiguement général la wala mu nekk euh, li nga xam ne mooy stress wala mu nekk li nga xam ne moom mooy euh, euh, liggéey ak lu mu ci mënti doon la muy rab soo naanee garab yi Euh, balaay 15 jours nga gis affaire bi normal ba nga xam ne yow dootoo am dootoo am éjaculation précoce su fekkee ne nag yàlla dafa def yow nga nekkuñ takk xala wala nga nekk koo xam ne euh, da nga daan yëg sa bopp guddi bu nekk daan nga mën a sëy ñaari yoon ñetti yoon ci guddi gi am na si ñoo xam ne daan nañ mën sëy ñaari yoon ba ñetti yoon ci guddi gi mais léegi dem nañ ba nga xam ne benn yoon bi sax dañ koy négocier te fekk na ñu ngi am ay 35 ans wala ñu am 40 ans 45 ans xanaa xamoo ne nit ki mën na dem ba am 60 wala 65 ans te di am érection normale di satisfaire soxnaam normal du am éjaculation précoce du am dara parce que nit ñi léegi wàllu ñaan dañ ko négliger wàllu faju dañ ko négliger te mag ñi dañ daan préparé wu ñu daan takk soxna wala ñu daan samp kër wala ñu daan yor seen néeg dañu daan yeesalaat seen ay dañ daan yeesalaat seen bopp da ngay toog jamono nga jékki-jékki nga jël sa ay jël sa sa njaq wala nga jël sa cumukaay yeesalaat ko naan say garab dàq saytaane yi raxas maladie yi dindi stress bi pour mën a amaat érection bu normal da nga daan gis mag moo xam ne danay am quatre-vingt-dix ans di am doom léegi pour nga gis góor guy jur fukki doom wala ñaar fukki doom c'est tout c'est euh, tout un problème parce que lu ko waral mooy euh, aliment alimentation bi baaxatul ba pare euh, ni dund gi nga xam ne ci moom mooy dund bi ñu war a dund baaxatul li ko waral bokk na ci tamit euh, li nga xam ne mooy financièrement nit ñi amatuñu xel mu dal ci seen wàllu euh, alal wala ci wàllu wàllu am-am tax na coono yooyu nag moom mooy jàpp seen cerveau bi jàpp seen xel yi ba dootuñu mën a euh, am li nga xam ne mooy li li nga xam ne mooy érection bu normal loolu nag dafa am yu yoo xam ne sooy faju faju garab kese mën nga am er, mu am si ñoo xam ne da ngay gis ñu dem faju bu ñu demee faju am érection bu normale am éjaculation bi dañ mais da ngay gis bu ñu demee dans bu ñu demee 6 mois wala ñu dem 1 rek affaire bi ñëwaat parce que li ñuy fajoo la bu fekkee palante kese la palante bi ñu fajoo nañ ko war a préparer préparer wuñ ko noonu niñ ko war a euh, sellale sellale wuñ ko noonu ya ca war a ànd àndu ca bu boobaa boo ko fajoo it mën ngaa tane waaye mën na ñëwaat jigéen dafay tëli comme ni góor di tëlee noonu la jigéen di tëli am na ci jigéen ñoo xam ne pour ñu ànd ak seen i ay jëkkër seen jëkkër dana def lu nekk pour ñu ànd ak ñoom parce que dañoo tële jigéen ni muy ni góor di tëlee noonu la jigéen di tëlee te jigéen ñoo ëpp tële fukki yoon ko góor ñi jigéen boo ci gis mu bëri histoire jigéen boo ci gis mu bëri ay jigéen boo ci gis mu bëri euh, euh, euh, xuloo ci wàllu sëy xamal ne kooku tëlewul jigéen bu bu tëlewul day bëgg sëy jigéen bu tëlewul day bëgg sëy jigéen bu tëlewul day sonal jëkkëram ci sëy mais jigéen bu tëlee dangay gis soo ko ooyee ci wàllu sëy sëy mu ut lay chaque fois day ut day créer li nga xam ne moom dala koy nëbb day créer li nga xam ne mooy ay waxtu ngeen bëggee ànd mu créer loo xam ne dafay indi tayal ci moom ba du bëgg a sëy loolu dafay du dañ man dama koy dindi jigéen yi nga xam ne dañuy sëy te duñu am bànneex am na ci ndaw soo xam ne ne na ma man sëy naa ba am ñaari doom mosu maa xam luy bànneexu sëy bànneexu ñàkk bànneex boobu ñu ñàkkitoon ci wàllu sëy naqar la wala coono la wala méttit la boo xam ne kenn xamut lu mu toll yooyu man ci 15 jours laa koy faj mu dañ jigéen ji jot boppam koo xam ne nag dañ laa jongal bi ngay gone ngeen baal ma ci jigéen kooku man duma ko faj ñu wax mu nañ wax wax wax bi na leer parce que jigéen ñi dañuy am feebar ci wàllu sëy góor ñi dañuy am feebar ci wàllu sëy ni góor di tëlee noonu la jigéen di tëlee ni appétit jigéen di coupé noonu la appétit góor di coupé am na ci ñoo xam ne seen appétit dina coupé parce que lan mooy tax appétit bi coupé seen jëkkër dañ leen a mës am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di violé buñ leen violé ba ñuy xale saa yu image bu mel noonu ñëwaatee ci ñoom rek nga gis seen appétit coupé ñooñu dañ leen di faj am naa ci garab am na ci ñoo xam ne dañ leen di waxtaanal psychologiquement pour dindil régler waat seen xel pour ñu mën a normalaat am na ci ñoo xam ne saafara nga leen di jox am na ci ñoo xam ne nag rab moo leen téye ñi nga xam ne bëgguñu sëy rab moo leen téye moo téye seen wàllu euh, euh, euh, bànneexu sëy buñ ànd seen borom kër duñ ci yëg dara da ngay gis ñoo xam ne bu ñu ànd seen borom kër ñu paree seen kanam day mel ni kaane moo ci nekk bu ñu demee toilette bu ñu raxasoo day mel ni kaani parce que lu ko waral mooy benn sa jëkkër du lu préparé du def préparation bu baax ak yow de fexe ba jot sa bànneex bu njëkk am na si ñoo xam ne duñ ko def mais am na ci ñoo xam ne rab moo leen di jàpp booy ànd ak sa borom kër nga gis rab bi ci boppam moom mooy dox sa digganteeg sa borom kër ba yow doo yëg benn bànneex loolu man dama koy dindi. ga ñi nga xam ne nag mooy góor ñi nga xam ne dañuy sëy ak seen soxna tey bu ñu sëyee moom balaa ñuy mën a yëg seen soxna. il faut ñu xalaat keneen am na ñoo xam ne pour bu manque loolu manque appétit na boo nekkee sa soxna sa soxna nga war a xalaat waroo xalaat keneen am na ñoo xam ne dañuy am problème boobu ñu ëpp ci ñuy sëy nag buñ dee téeméeri góor juróom fukki góor yëpp problème boobu am loolu moom kenn kenn waxagul loolu moom ñiy sëy ñëpp ñëpp ñëpp dee téeméeri góor juróom ñetti fukki góor yëpp bu ñuy ànd ak seen soxna pour ñu am bànneex il faut ñu xalaat keneen ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax moo ci yem loolu feebar la man dama koy dindi nit bu wéree suy gisee jigéen wala mu gis wala mu gis dara lu nekk bokk ci jigéen rek yaramam war naa tàng loolu mooy ku wér kéŋ mais su fekkee ne yow pour nga pour nga pour nga yëg sa bopp il faut nga xalaat keneen wala il faut nga def ay imagination imaginer ay yeneen xalaat yeneen mbir loolu saa yoo ko gisee sa bopp rek xamal na yaa ngi am problème mu sëy góor dafa war a di naan garab góor dafa war di toppatoo boppam góor dafa war di préparer boppam ci li nga xam ne moo nekk ci wàllu sëy sëy dafa nekk lu sacré doomu aadama yi nga fi gis yëpp ñuy dund sëy moo leen fi indi ñu nga gis ñuy dund ci kaw suuf yëpp sëy moo leen indi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di takk di leen yóbbu ci kër yi yëpp sëy mooy principal bi kon sëy mbir la moo xam ne mbir mu sacré la mbir la moo xam ne kenn waru ko foye mbir la moo xam ne kenn waru ko négliger mbir la moo xam ne kenn waru ko moom lañ war a jël def ko mu nekk premier point premier point bi ñu war a toppatoo ci kër mooy sëy fexe ba sëy bi jaar yoon ki ngay sëyal nga man koo satisfaire bu xaalis ñëwee baax na su xaalis ñëwul baax na su kër gi rafetee baax na su kër gi rafetul baax na su oto amee baax na su oto amul baax na su dépense amee baax na su dépense amul baax na waaye li jiitu ci kër gi ba tax moom mu bàyyi kër ndeyam ka bàyyi kër baayam ñëw ñëwu sa kër mooy nga dimbale ko satisfaire ko ci côté sëy moo tax nit ñi nañ bàyyi xel loolu loolu man maa koy fàttaliwaale góor ñi ñu bañ koo négliger képp koo xam ne sentir nga ci sa bopp benn wàññeeku wàññeeku ci wàllu sëy na nga jël sa dàll nga sol ko nga fexe jël loolu nga def ko mu nekk priorité ci sa bopp nga dem fexe lijjanti ji loolu ba mu féetee boor moo tax sëy duñ ko caaxaani sa partenaire dafa nekk sa nawle dafa nekk koo xam ne ci yow dafa dafa bokk ci yow dafa nekk koo xam ne da nga ko war a jox xàqam dafa nekk koo xam ne da nga ko war a jox gëddam dafa nekk koo xam ne da nga ko war a dimbale dafa nekk koo xam ne da nga ko war a jàppale ci li nga xam ne moom mooy li ay besoin bokk na ci nag nga defal ko utal ko yére yu rafet bokk na ci nga utal ko dàll yu rafet bokk na ci nga utal ko kër gu rafet bokk na ci nga utal ko loolu yëpp baax na waaye bu sëy amul zéro la li ci kaw yëpp dañ ma day mabb moo tax sëy la ñuy jiital nañ dimbale jigéen ñi ñu fexe ñuy am bànneex te tamit bokk na ci nga nekk ak sa soxna da nga koy laaj su ngeen di ànd yéen ñaar da nga koy laaj ndax lii ñuy def mag yow yaa ngi ciy sentir sa bopp mu wax la waaw walla mu wax la déet am na ñoo xam ne dina sëy ak seen jabar duñ lijjanti ndax seen jabar dina yëg boppam ci sëy bi wala yëg boppam ci sëy bi am na ñoo xam ne xamuñ sax seen jabar waxtu mu nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi jot boppam euh, mooy li ñuy wax daanu ngeen baal ma ci baat bi am na ñoo xam ne xamuñ ko sax si seen jabar bu bu fekkee ne seen jabar danga koy def ndax jigéen booy ànd ak moom du sëy moom yow wala ngaay lijjanti sa bopp war nga koo dimbale jàppalanteeg moom nax naxlanteeg moom lanteek moom ba yëg ne mu ngi jot boppam nga ànd ak moom jot ngeen jotandoor seen bopp waaye am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci loolu seen ñoom daal na seen aajo faju ñu sol seen daal wan la ginnaaw moo xam yaa ngi yëg sa bopp wala yëgoo sa bopp seen yoon nekku ci moo tax jigéen dañ koy dimbale jigéen du da nga jox lekk da nga koy jox naan rek doy na déedéet am na ñoo xam ne mën nga mën yàlla mën na la nattu doo mën a tenir lu yàgg mais balaa ngay ànd ak sa soxna nga préparé wu nga dimbale ko nga nattaan ko ngeen foo foo bu yàgg ba moom mu commencé ba yaramam tàng nga xam ne boo àndee moom yow balaa ngay jot sa bopp fekk moom mu jot boppam ngeen àndandoot jot seen bopp lu ko defee moom dalay fonk dalay bëgg dalay yëg dalay dund dalay day day da ngay nekk wéttalam mais am na ñoo xam ne seen i jëkkër dañ leen a xatal boo gisee jigéen ñi di bañ seen jëkkër yi wala nga gis jigéen ñi di mere seen jëkkër yi parce que dafa am manqué ci seen diggante ñoom ak seen i jëkkër bokk na ci côté loolu ma leen wax mooy wàllu sëy sëy dafa bokk ci jigéen sëy dafa bokk ci jigéen jigéen yàlla daf ko bind ci ñaari xaaj mooy bëgg taar bëgg ak bànneex loolu mooy dundu jigéen jigéen bëgg bànneex dafa bokk ci moom bëgg taar dafa bokk ci moom waaye nag bànneex la gën a bëgg ci taar waaye taar la gën a bëgg ci wax wax nag la gën a bëgg ci li nga xam ne mooy comportement moo tax jigéen soo koy wax wax sa comportement nu mënti mel soo koy bu neex di ngeen mën a nekk sa soo koy wax wax bu neex te doo ko dimbale ci côté taar du ngeen mën a nekk soo koy wax doo koy dimbale ci taar di ko wax wax bu neex te doo ko satisfaire ci lal ba du ngeen mën a nekk donc benn mu ci nekk dafa am étape boo xam ne ci la jigéen di fonkee góor waaye ba ca jiitu mooy nga satisfaire ko ci lal ba ba nga xam ne dina yëg boppam normal moo tax jigéen dañ koy satisfaire ci lal traitement yi nag am na disponible na man samay garab waa Europe ñoo ko gën a xam ñoo ko gën a ñoo ko gën a ñoo ko gën di jël Sénégal nag dinañ jël samay garab euh, samay samay garab sénégal yi dinañ koy jël waaye li ko européens yi di jëlee ak euh, waa Amérique américains yi noonu loolu dafa dafa jéggi dayoo parce que man lépp lu ma ci yor ci wàllu sama euh, ay garab daanaka du def man 10 jours ma ma ma defar ma defaraat yeneen teg parce que garab yi baaxaay bi fàttalikuwuma ci man defal góor wala traitement pour wàllu sëy te newut ma jërëjëf gisaguma ko donc loolu fekkee na nit ki dafa dafa dafa am problème boobu soxlawul ngay yàq sa xaalis ci àll bi soxlawul ngay dem fenn ñëwal man danaa la defal traitement bi ba nga wér ci jàmm foo mën a nekk nag ci àddina bi mën naa mën naa laa dimbale pour jokkoo ak man du problème pour gis ma du problème maa ngi fii cité Aline Sow ci Sénégal ci dakaar soo ma mën soo mun mënta ñëw nga woo ma ci sama numéro téléphone 78 la 162 64 64 soo ma ooyee man danaa la dimbale ba nga mën a jot garab yi ñu waxtaan ba ma mën laa dimbale ba nga mën a jot garab yi nga naan ko nga nga nga jot sa bopp parce que sëy dañ koy toppatoo sëy dañ koy toppatoo sëy dañ koy toppatoo jigéen dañ koy satisfaire jigéen dañ koy satisfaire li nga xam ne nag am na ñoo xam ne dana ñuy sëy pour am doom mu jafe leen ñu bari dana ñuy sëy pour am doom doom jafe leen alhamdulilah yàlla may nañu taw feex ci loolu ba nga xam ne tey am nañ garab yoo xam ne bu ñu la ko joxee nga koy naat yàlla dana la may doom bu fekkee da nga am problème mu sperme sa problème sperme bu ba amee problème moo xam dafa am problème mu mobilité maanaam bu fekkee ne dox bi dafa yéex comme ça masalan soo àndeek sa soxna soo soo éjaculé ba pare euh, nga xam ne sperme bi spermatozoïdes yi dañuy dund vingt quatre heures hmm? vingt quatre heures yooyu su fekkee ne yàlla dogal na balaa 24 heures yi yëpp dee am naa garab boo xam ne boo ko naanee dina leen tenir dina leen dimbale ba si wàllu wàllu wàllu mobilité bi mu mën a baax su fekkee ne nag dafa am problème forme lii nga xam ne waaye bopp bopp bi dafa am feebar wala geen gi am feebar wala moom spermatozoïde bi am problème am naa garab boo xam ne suñ la ko joxee dafa la traitement bi jox la nga naan ko dinga nga am qualité qualité sperme bu baax dootul yolom te dootul nekk lu ndoxe te du dootul nekk lu néew am na ñoo xam ne problème mu volume la ñuy am su fekkee da nga am problème mu volume mën naa la defal traitement bi ba nga am volume normal su fekkee ne wàllu wàllu sperm la mën naa la defal traitement bi su dee wàllu dermatologie bi la mën naa la defal traitement bi am na ñoo xam ne ñoo am problème mu varicocèle mooy testicule yi nga xam ne ñoo war a def production pour wàllu sperme bi ñooñu seen testicule yi day am problème euh, li nga xam ne mooy wàllu varicocèle varicocèle nag man damay wax ne képp ku ko am soxlawul ngay dem ñu lay opérer man duma d'accord jamais au plus grand jamais ci ñuy def opération varicocèle même pas 10 jours damay faj sama damay faj varicocèle 7 jours fajal naa ko nit ci problème mu varicocèle kon wàllu sperme wàllu sëy dafa am ay quarité dafa am ay catégorie dafa am ay xaaj yoo xam ne benn bu ci nekk dafa laaj ki koy def mu maîtriser ko moo tax faj dafa am yoon nit ki pour amee problème ñëw ba ci yow sollicité la dafa laaj ci ci yow nga nga nga jël kaam au sérieux nga traité ko et li ngay def nga xam ko garab yi nga maîtriser ko faj bi nga maîtriser ko dosage bi nga maîtriser ko euh, li nga xam ne mooy suivi bi nga mën ko def nit ki nga mën koo def jox ko communication boo xam ne même bu demee ak garab bi këram dina mën a def suivi ak dina mën a dimbale boppam pour naan garab yi donc yooyu yëpp dafa am solo ci li nga xam ne mooy traitement yi ki nga xam ne dafa am problème mu wàllu wàllu doom am na ñoo xam ne bëgg nañ doom mënuñu ko am am na ñoo xam ne amoon nañ doom mënatuñoo am doom am na ñoo xam ne seeni ay sœur wala seen ay mbokk ñu ngi sëy xam nañ ci ñoom ne ñii di ñoo am jafe-jafe am doom am na ñoo xam ne def nañ def nañ scanner am na ñoo xam ne def nañ analyse def nañ euh, kii euh, euh, lu ne def nañ ko ñi ñi jigéen jigéen ñi nga xam ne dem nañ hôpital ñu defal leen échographie mënuñu gis dara ci seen bopp amuñu gis luñu leen benn jàngoro góor ñi nga xam ne dem nañ def spermogramme amuñu benn jàngoro seen qualité sperme mu baax na ñooñu am na li nga xam ne moom laa leen di defal comme traitement garab yu ñuy naan ak saafara bu ñuy naan pour seen wàllu ndox am seen yàlla may leen doom parce que doom dafa am secret ci mag ñi loo xam ne képp ku ko naan si jigéen bu dee ñaari règle nga am balaa ñetti règle dinga am di nga gis ëmb di nga jëlal kon loolu dafa am traitement spécial boo xam ne mooy pour wàllu am doom am na traitement boo xam ne pour wàllu li nga xam ne mooy su fekkee ne da danga da nga taxaw xam ne ni am na ñoo xam ne dañuy dem ba yàgg ñoo am problème trompe seen trompe yi day buusi am na traitement boo xam ne pour trompe yu buusi la am na ñoo xam ne seen ay règle seen day taxaw mais du du problème mu ëmb mais règle bu bouché la règle bi mooy bloqué ñooñu am na traitement boo xam ne moom laa leen di jox ñu garab boo xam ne moom laa leen di jox ñu naan ko benn weer rek seen règle dana déclenché normal am na ñoo xam ne dañu am problème mu fibrome pour wàllu doom ñi nga xam ne dañu am problème fibrome fibrome bi man am na ci ñoo xam ne bu ñëwee bu réyee lool dama lay wax nga dem hôpital dafi opération bi parce que damay bañ nga am problème mu ani nga anémie su fekkee ne li nga xam ne mooy fibrome bi commencé na déclenché tu bu boobaa du la mën a jox ay fer yooyu mën a naan pour mën a delluwaat normal loolu tax am na ci ñoo xam ne bu dee fibrome bu yem la boo ñëwee dama lay defal traitement bi 2 mois la dama koy traité ba mu dañ na ñoo xam ne loolu daf leen di empêcher ci wàllu am doom ci kyste problème mu kyste am na ñoo xam ne ay problème mu myome am suñu amee ay problème mu bu ñu dama leen di defal traitement moo xam da ngaa am 12 myome wala 24 myome wala 13 myome lu mënti doon boo dikkee dama defal traitement mu dañ doo traitement euh, euh, euh, fibrome am na fu muy toll doo ko opéré su dee wàllu trompe la dama lay dimbalee nga naan garab mu dañ bu dee règle bu bu bu la ba fekkee na nga toog 4 ans ñeenti at yow gisul règle boo naanee garab yi benn weer ñaari weer nga gis sa règle bu ñëwaat te bu xasee ñëw dootul kalete waat dootul dem ba yàgg muy arrêté waat loolu am nañ ci garab bu baax bu efficace boo xam ne boo ko naanee mu dañ donc doom dafa am ay cas yoo xam ne nit ñi suñu amee problème yooyu problème yooyu yëpp dafay dafay revenir ci wàllu wàllu doom dafa concerné wàllu affaire am doom moo tax doom dafa nekk lu sacré loo xam ne mooy neexal sëy sëy nag la ca jiitu mooy mbëggeel su mbëggeel amee ba pare lay sa ay intérêt soo ko ñëw intérêt ne bokk na ci doom waaye mbëggeel na am na nga gis ku jigéen ki nga xam ne saa yu ko gisee mu am doom mu ñàkk am doom yëpp di nga sentir ne sa wàll la sa partenaire la sa genn wàll la loolu moo jiitu ci sëy deuxième bi ci topp nag mooy doom ñëw su doom ñëwee mooy pour ñu mën a préparer seen ëllëg pour am lu mën a continuer programme bi nga xam ne moom nga tëraloon nga am mu am continuité loolu mooy loolu la ñuy doyee doom mais sëy moo jiitu njëkk doom nit ñi nag am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñuy sëy bu ñu amul doom dañuy gàddaay loolu foo ko gis rek mooy xamal ne sëy ba mbëggeel amatu ci woon wala nga xam ne ñàkk doom rey na mbëggeel ga kon loolu dañ koy suuraale nit ki bu la bëggee nga bëgg ko war ngeen mën a sëy te yàlla tax nattu nag yàllaa koy teg nit waaye nag sabab lu pour wér dafa am solo ndax yàllaa ko digle nit bu fekkee ne da feebar da nga war a dem faju ji loolu daf ma war ci képp ku feebar feebar nag boo ko defee faju ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon na man doyal naa mënatumaa dema mënatumaa dem ci kenn loolu yaa ngi découragé sa bopp parce que am na ñoo xam ne dinañ dem ci médecine traditionnelle duñ wér ñu dem ci médecine moderne duñ wér bu boobaa dafay mel ni seen bopp day tëju parce que liñ yaakaaroon ak fi ñu yaakaaree woon a wéree sotti yoowu fa bu boobaa da ngay gis ñu bëgg a découragé mais damay wax na jamais euh, bul leen mës a découragé ci dem faju ci lu mu kaa lu mu métti métti loo dépensé dépensé dépensé alal loo dépensé dépensé dépensé sa temps na nga continuer dem faju parce que yàlla ngay jëflanteel te yàlla mooy maye mën nga dajeeg un bon nga dajeeg ko xam ne yàlla dina la booleeg moom nga faju nga wér. waaye alhamdulilah yàlla defal nañu sutura ci côté li nga xam ne mooy wàllu am doom dimbalal nañu ci ñu ñu bari ñoo xam ne tey am nañ seen njaboot ñu ngi seen biir néeg ñu ngi sant yàlla. te li leen gàllankooroon bokk na ci yi nga xam ne moom lañ lim bu dee nag nit koo xam ne nag yàlla dafa dogal ci yow ay avortement ngay avorté avortement dafa bëri ay xaaj nit ñu bëri am nañ ay jafe am doom seen jëkkër seen sperme baax na ñii seen euh, euh, amuñu problème mu ovulation am nañ ovule mën nañu ovuler ah danañu am am nañ lépp amuñu benn problème mais suñu ëmbee balaay trois mois ëmb bi yàqu am na ñoo xam ne bu ñu ëmbee gént sëy rek nga gis ëmb ba bu ñu yeewoo ëmb bi yàqu loolu rab moo koy def loolu am nañ ci téere boo xam ne ak saafara boo xam ne bii dañ koy naan bii nga takk ko boo ëmbee rab dootu ko yàq dootu dootoo ko tuur loolu mën nañ koo def am na ci ñoo xam ne bu ñu ëmbee seen activité yi ñuy def mooy yàq seen ëmb ndax seen bassin bi day day day gàtt du ñu mën a garder ëmb su fekk ñu ngi def ay mouvement yu bari ñooñu noonu man dama leen di conseiller ñi nga xam ne dañ buñ ëmbee day ëmb bi day gaaw a yàqu nañ di wàññi ay activités yi ñuy def soit bu fekkee da ngay yëg escalier nga wàññi ko su dee da ngay yëkkati lu nga wàññi ko su dee da ngay yëg oto nga moytu pax oto moytu oto oto yi nga xam ne dañuy daw lu bari wala ñuy secousse secousse bu métti ñooñu mën na leen a tax ñuy avorté avortement yu bari donc yooyu yëpp dafa concerné lu jëm ci li nga xam ne mooy wàllu am doom nit ki mën na ëmb fekk ni muy toogee mooy tax ëmbam yàqu ëmb nit mën na ëmb fekk ni muy tëddee moo koy yàqal ëmbam nit ki mën na ëmb fekk ni muy àndee ak borom këram mooy yàq ëmbam donc nit ki su ëmbee laaj na nga nga nga nga ñëw euh, demande ay conseils ñu dimbal la dafa la am na ci téere yoo xam ne téere kaaraange la ci wàllu ëmb ku ko ëmb ku ko takk doom joo ëmb yàlla dana la dimbale mu dund ba nga yónni ko loolu am na téere yooyu moo tax ëmb mag ñi dañ ko daan sàmm ëmb mag ñi dañ ko daan wattu ndax am na saay-saay yoo xam ne euh, yàq ëmb rek moo leen tax a jóg waxtu woo dajeeg ñoom sa ëmb yàqu loolu yëpp am na gàllaaj yoo xam ne moom mooy tax soo ko amee yàlla musal la ci loolu moo tax côté am affaire am doom dafa sensible moo tax loolu yëpp dafa concerne affaire u sëy bokk na ci sooy ànd ak sa partenaire su fekkee ne da am éjaculation précoce dañ koy traité su fekkee da nga am faiblesse sexuelle dañ koy traité bu fekkee da nga am manque appétit sexuel dañ koy traité traitement bi nag am na fi garab yi baax na efficace na te nekk am na garab garab la yoo xam ne amul benn effet secondaire walla wàllu côté effet secondaire yi yëpp loolu régularisé nañ ko normal na amul problème amul kenn ku koy naan mu jural la benn complication ci sa wàllu santé soo ko naanee yàlla daf lay dimbale am na ci yeneen ay jàngoro yoo xam ne sax garab yi may jox nit ñi ñu koy naan daf koy fajaale te sax yow doo ci rendre compte ndax baaxaayu garab bi ndax gaa garab yi wolof dafay faj lu bari ci benn euh, euh, yoon bi nga xam ne moom nga koy naan ndax njariñu garabi wolof moo baax ndax dafa nekk loo xam ne c'est des choses yoo xam ne c'est des choses naturelles loolu moo tax mu baax baaxaay bi nag yegg na ci tey fi mu ne nii occidentaux yi ñu ngi ciy commencé yeewu ñu ngi commencé dem vers vers la vers bio pour mën a xam ne pour mën a pour ñu mën a delluwaat li nga xam ne moytu li nga xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy wàllu euh, produits chimiques yi ndax garab yi léegi africains yi ñu ngi ciy commencé yeewu ndax dañ ko daan négliger léegi moo tax alhamdulilah ñun suñuy garab dañ koy envoyé par les GP am nañ ay GP yoo xam ne partout dans le monde fu waay bëgg nekk fu waay nekk boo soxlaa suñuy garab am nañ ay GP yu ñu ko mën a jox indi leen ko fu waay mën a fu waay mën a nekk nag sur mën nañ la yónnee li nga xam ne mooy suñu ay garab garab yi nag baax na efficace na li jëm ci wàllu hémorroïde nga xam ne mooy bu externe bi ak bu wàllu bu ex interne bi yëpp dañ koy traité li jëm ci wàllu ndoxu siti catégorie yi ndoxu siti am yëpp dañ koy traité ndoxu siti bari na ay xaaj waaw ndax tubaab yi ñoom mënuñu koo faj tubaab yi mënuñoo faj ndoxu siti parce que mënuñu koo mënuñu koo canaliser ndax ndoxu siti dafa bëri ay xaaj moo tax bu fekkee ne dafa jàpp sa wàllu der wala mu jàpp sa wàllu bët wala mu jàpp sa wàllu karaw wala mu jàpp sa wàllu li nga xam ne mooy yaram wala mu jàpp sa wàllu tànk nga xam ne ñi am pied d'athlète ñuy wax ñuy wax pied d'athlète mooy borom tànk yi xar yooyu nga xam ne seen diggante baaraami tànk yi day am lu loolu ndoxu siti moo koy def loolu man dama koy faj ci diit bu gàtt am na ñoo xam ne nag dañuy faj ndoxu siti ba sonn duñu am solution pour faj ko waaye man dama koy traité traitement boo xam ne traitement bu efficace la bu baax la traitement la boo xam ne boo koy naan doo yëg ne sax yaa ngi naan garab du def benn effet secondaire du feeñ sa yaram <laughs> du def ay bouton koo xam ne boo sangoo ba pare boo naanee garab bi da dindi ba mu am na ay savon yoo xam ne dama ko liggéey dama ko liggéey sax pour ñi nga xam ne seen yaram yi day xasan ak ñi nga xam ne dañu am picc kanam picc kanam moom ku ko am di ko traité fu nekk nga déw pomade bu ne nga diwoo ko mu të am naa savon boo xam ne boo koy sangoo mu dëñ dans quinze jours maximum un mois benn savon bi boo koy sangoo sa kanam gi set wécc benn picc kanam dootoo ko gis sa si sa yaram loolu mooy meilleur savon bi nga xam ne moom moom man maa ko liggéey mu nekk saabu bu efficace ci wàllu bouton ci wàllu picc kanam dafay dindi sa peau grasse yi dafay dindi sa li nga xam ne mooy peau acné yi dafay dindi li nga xam ne mooy po mooy euh, picc yi nekk si sa kanam dafay hydrater sa po bi ba mu leer ba nga xam ne léegi ku la xool daf lay bëgg a xoolaat dafay mel ni sax da nga da nga def poudre si sa yaram ndax sa peau grasse ni muy dañu traitement la boo xam ne boo koy sangoo boo koy sëlmoo wala nga koy sangoo dafay dindi loolu ba mu set donc alhamdulilah loolu yëpp nag ñu ngi ko def ci garab la yoo xam ne fii ci réew mi lañ ko jëlee ci réew mi lañ ko liggéey donc sénégalais yi nañ delluwaat gëmaat seen bopp xam ne Euh, liñ nga xam ne ñu ngi koy jëggaane ci àll ba liñ fi am moo ko gën a baax téeméeri yoon waaye nag liñ fi am pour sénégalais yi di ko consommer il faut ñu moderniser ko méngale ko ak jamono ba nit ñi buñ koy jëfandikoo du am différence ak li nga xam ne mooy jógee ci bitim réew waaye nag yor loo xam ne danga koy danga koy yor mu baax ba pare nga di ko sàggane moo tax man samay ay garab dama dama ko defar ba nga xam ne dafa dëppoo ak jamono tey li jógee ci bitim réew ak li nekk ci réew mi si sama ay garab boo ñëwee boo leen tegee mënoo leen a xàmmee parce que dama ci jël sama àll li ma nga xam ne moom laaj gagné ci garab yi dama ko jëlaat di ko delloowaat ci garab yi pour satisfaire la euh, satisfaire clientèle bi pour euh, dab seen bànneex pour wan leen ne carrément man dama fi nekk pour yéen yéen it da ngeen fay war a nekk pour man parce que c'est Sénégal qui gañ loolu moo tax ñuy xeex ji rayante di di di di koy def ay création emploi di dimbale seen jeunesse bi di def ay création emploi di dimbale jeunesse bi di dimbale tamit li nga xam ne mooy suñu ressources naturelles yi nga am nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp kenn duñu dimbale pour ñu mën koo def ñun ñoo koy ñun ñoo koy defaral suñu bopp kenn ku ci nekk bu jàppee ci benn làcc def ci la ko ca war sellal ko teg ko ci yoon bu boobaa ku koy jëfandikoo tamit bu ko mosee dina siwaat moo tax Cheikh Omar Diop boo waxee ñu ne seex Omar Diop ay garabam baax na lenn kay mooy cat Cheikh Omar Diop mooy daa seeri mbir lu baax nag mënta yomb loolu tout le temps man dama koy wax tax man sama ay garab Eh, eh, ku ko mos foo jaar di nga dolli ku ko mos foo jaar di nga dolli parce que ku ko mos di ci gis sa bopp loolu tax man damay jël sama temps def ci li nga xam ne moo ci war su dee ci wàllu alxuraan la danaa ko ci def pour li nga xam ne wàllu mystique la li loo xam ne baatin la nga xam ne ay rab la wala liggéey la wala cat la yooyu dama ko ci def ba nga xam ne boo ko laalee loolu lépp daf lay abal donc loolu ci wàllu li nga xam ne mooy néegu sëy lañ doon waxtaanee tey Euh, di dimbale di leen wan ne solution am na am nañ garab yu baax ay tisane la yoo xam ne ay tee la yoo xam ne boo ko naanee da ngay jot sa bopp traitement bi disponible na ci fii nga xam ne mooy cité Aline Sow ci biir cité bi boo ñëwee nga laajte jumaa ji soo ñëwee ba ci jumaa ji nga laajte village 652. mooy kër Cheikh Omar Diop boo ñëwee foofu incha allah ñu defal traitement wala nga woote ci numéro téléphone bi ak foo mën a nekk ci àddina bi wala ci Sénégal mën nañ la ko livrer secrètement yow kott yaa koy xam te kenn du ko xam mën nga traité yow sa boo wér te kenn du xam na ne am nga ko il suffit nga nga wooñu numéro téléphone bi am na WhatsApp boo ñu wooyee incha allah mën nañ la waxtaan ak yow su laajee ñu livrer la ko ñu livrer la ko su laajee nga ñëw nga ñëw su fekkee ne ku nekk bitim réew la su laajee ñu yónnee ko GP ñu yónnee ko ko su fekkee ne dafa bëgg yónni mbokkam mu ñëw ñu yónnee ko fa mais lépp mën na am ci sutura nga faju ba wér benn problème du ko am doo ko doo ko am te du yàq sa temps du la tardeel di nga wér te doo am benn jafe-jafe numéro téléphone bi mu ngi nekk 78 162 64 64 78 162 64 64 disponible na partout euh, ci ci Sénégal waxtu woo ko soxlaa boo ñu ooyee ñu dimbalante yow ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, euh, wa masalik ala laay baasis wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë